Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur maa ngi lay kilifa gi. waaw maa ngi tudd Souleymane Badji délégué de quartier Malika Sud quartier Mafous Badji nekk président des délégués de quartier à gis jamono ji fi nga xamante seen dëkk bi nga xam ne mooy Malika bari na loo xamante ne muy ay mbirum rey parce que jamono ji pass ñu ne fi ñu rey euh, te ñu fii ñu reyaat fi keneen koo xamante ne ku góor la te kilifa la tamit fii fi nga xamante ne tey noo gisee tey loolu en tant que délégué waaw man de en tant que délégué de quartier wax dëgg yàlla li ma ci mën a wax mooy mbir la moo xamante nii ñoom ñëpp ñu ngi koy ñaawlu dañ koy ñaawloo mooy kenn amatul sañ-sañu dox librement mel ni ay prisonniers lañu te fekk nu some des citoyens libres war a dox suñuy soxla donc suñu demee ba ñuy wax ni insécurité sociale maanaam loolu dañ koy mën a tudd insécurité sociale mooy maanaam nit ñi doxatuñu librement di dox seeni soxla parce que toujours am nga looy hésiter par si par là donc loolu ñu war a toogaat taxaw seetlu pour saafara ko donc li koy indi mooy xale yi nangootuñu jàng nangootuñu woon dem jàngi métier waaw donc loolu ça devient compliqué donc si les jeunes nangootuñu jàng nangootuñu jàngi métier donc fii la mucc donc saafara bi mooy xale yi nañu dem jàngi métier mbaa ñu jàngi mbaa ñu dem bay ndax xale yi léegi nangootuñu daan doole daan doole du question da ngay am liggéey da ngay ne fii ngay liggéey nga am tool mais boo xoolee tey boo demee marché central poisson pour le Fouta yi nga fay fekk doo fa fekk pour quoi pour quoi sénégalais yi du ñu dem marché central waas jën wala ñu dem ci kay waas jën ah wala ñu jël xaal ji ko jaay jël orange di ko jaay mais les sénégalais non ça devient compliqué. donc emploi bi nga xamante ni moom la ñuy jàmbat ñu jël ko bàyyi ko ak étranger yi mais fii la ñuy mujj. ñu seetlu seen mooy seen place bi nga xam ne mooy place bu Malika bi benn lampe boo xam ne mu ngi fa tamit loolu tamit bokk na si loo xamante insécurité la te fi police bi population bi moo ëpp police bi téeméer yoon parce que sécurité bi na mën a yokk tamit tey wax tamit si loolu nga wàllum autorité bi. waaw plage bi wax dëgg yàlla ñun population bi ñoo ko moom. te dem nañu ba nga xamante ni. bu fekkente ni dañoo dem ba population bi amatuñu sañ-sañu dem ci plage bi ça devient compliqué parce que ñun suñu lieu de loisir foofu la war nañ fa mën a dox librement à n'importe quelle heure mais si aujourd'hui la population dem nañu ba ñoom dañuy hésiter sax pour dem ci plage bi donc ça devient compliqué donc des fois en plein jour nga gis ñu agressé hmm? donc euh, dañuy wax ni sax Euh, à Malika c'est moins grave par rapport ak gàddaay par rapport ak géejawaay loolu la nit ñi di wax mais ñun sunu kaa la xam li ñu ci mën a wax mooy que le li ko dalee ci sous préfet nga xamante ni moom moo gérer l' arrondissement des Niayes mu jël ay instructions qui va permettre à la police de Malika ñuy investir wu carrément ci ci VDN bi pour permettre population bi mën a dox ci VDN bi librement. parce que la police de Malika est en train de faire un travail excellent au niveau de Mbeubeuss pourquoi pas VDN bi donc aujourd'hui man li ma gis mooy agresseurs yi nekkoon Mbeubeuss ñoom ñoo daw ñëw ci VDN bi parce que di ko dalee mbaaru ndey ngoom ba keroog ngay egg m la police est en train de fair un excellent travail là-bas maintenant ñooñu dañuy rabattre maintenant daw ci VDN bi donc c'est la police n'a pas assez d'éléments pour qui léegi nag ñu demandons à la sous-préfecture à la à préfecture ñu demande à l'État de subventionner vraiment l'arrondissement des Niayes le commissariat de Yeumbeul le commissariat de Malika ah la gendarmerie de Keur Massar pour que ñu renforcer leen ay éléments parce que dañ ko soxla parce que milieu trottoir la milieu bu bu sensible la waaw milieu la boo xamante ni yëmbal duggante na ak Malika yëmbal Malika duggante na ak Kër Massar donc boo xoolee ñaari commissariat yi sax ci peux dire que ni ñaari commissariat yi doyul pour la population bi fi nekk donc l'arrondissement des Niayes waroon na am ci man ci sama philosophie lu mu xat xat xat war na am trois commissariats au niveau de Comico di ko dalee Comico dem ba. Euh, mbeddu faas génn wuti euh, robine fi ñuy wax robine jàmbaar dugg m bi war na am un commissariat qui va permettre de sillonner tout ce problème mais tey boo jëlee tey su problème amoon buun commissariat yëmbal balaa ñuy génn bay yegg foofu day xaw a doy war dara amoon quartier Aliou Diallo balaa commissariat bi di génn commissaire policier yi di génn bay egg foofu ça devient compliqué donc loolu yëpp le sous-préfet le préfet les maires qui sont là war nañu mën a toog ñu waxtaan ñu xool comment gérer la sécurité de la population sécurité population bi du ay làmp kese sécurité population bi du ay policier kese mais dafa laaj waxtaan li kii mënul kii mën na ko boo mënee fii kii mën na fee boo jàppee fee kii jàpp fee je pense que loolu ça va permettre population bi nekk à l'aise waaw moom yàgg na fi am wala c'est la première fois ñu am ñoo ñu rey fi nit wala agression yi mel nii yaa bëri na di fi am wala wala rarement la fi am. bëri na fi am ci ay jamono doo daan am diggante mbaaru ndey ngoom jëm mbëbës wàcc jëm am towaa mais léegi nag mu ngi commencé dugg ci dëkk bi parce que léeg-léeg même au croisement de Malika des fois nga gis fa ay cas d'agression mais des fois day nekk ay ñoo xamante ne soit dañuy yor seen i moto. ngay romb ñu këf sa portable daw ak moto bi mais bii nag moom c'est pire un gosse de 39 ans un gosse qui ki qui a nga xamante ni moom euh, il a koo ko fekk mu ngi mu ngi mu ngi reyante pour la survie de lui-même la survie de ses petits-enfants ah ay ay ay Samba Mboy bon laa leen laa leen mën a tuddee ñu ñëw def li ñuy def nii. vraiment c' est c' est c' est c' est nañu d' accord sax ñu jël matériel am dem mais ray bi vraiment c' est c' est trop méchant waaw ñun nag en tant que euh, délégué de quartier ak samay naataangoo délégué de quartier yëpp vraiment ñu ngi ñaaw ñaawlu li xew waaw waaw. Sunugal 24 point net